xam nga tey ji am na arrestation yoo xamante ne bu amee toujours liñ ci njëkk jublu mooy dafay am ñaari euh, gis-gis yu ci am mm-hmm. bi si jiitu mooy par rapport à la faute commise maanaam mm-hmm. faute bi nga xamante ne commettre nañ ko wala erreur bi nga xamante ne moom lañ def beneen bi ci topp tamit mooy par rapport à l'exemplarité ou bien par rapport à la leçon bi ñu bëgg jox ñi nga xamante ne moo di moo di moo di moo di moo di moo di askan wi nga xamante ne kooku foofu la bàyyi ko mm-hmm. loolu moo da nga daan gis Euh, nit def la naka sudul noonu nga gis retour de parquet di enchaîné wu retour de parquet di enchaîné wu parfois mhm. li ci jublu mooy servir que de leçon pour mu pour mu jàngee ci donte bu demee jàkkaarloo ak juge bi li ñu ko fay téye du yàgg ak yu mhm. moo tax da ji euh, da ngay comprendre que ni euh, retour de parquet bi bi mu amee tey man personnellement surprendre ma mhm. parce que bokk naa sax si ñi nga xamante ne dañu nekk di xalaat jamono ji est-ce que retour de parquet du dem di dem dem amaat benn retour de parquet ah, parce que gis nañ fi euh, classe Assane Diouf bi demoon nañ fi ba am fi ay mhm. quatre retours de parquet cinq retours de parquet mhm. waaw su fekkente ne nag bon dañoo dañoo dañu dañoo inscrit sur logique boobu ñu nekkoon ba tey tamit ñu fàttali ne mhm. euh, justice bi fi Macky Sall bàyyoon moo fi nekk ba tey parce que président ba Bassirou Diomaye Faye ba léegi conseil supérieur de la magistrature defagu fa defagu fa benn nomination defagu rencontre jëlee kii indi parce que la preuve. Mhm. mooy Abdou Karim Diop bi nga xamante ne mhm. mooy procureur de la République moo fa nekk ba tey. Mhm. tout à fait euh, boo ci génnee ministre Ousmane Diagne bi nga xamante ne moo nekk le ministre de la justice amaatul keneen koo xamante ne mën nga ne dañ koo fal wala nangam ak nangam moo war a lii di am kon ñoom ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi. même pratique yooyu nga xamante ne ñoom lañ doon defee attends-toi à ce que buñ ko baa jaxate subir du jaaxal kenn. Mhm. mooy amaat retour de mhm. de parquet ba lundi ngay a gis de parquet. Mhm. boo demaatee suba nga am gannaaw retour. Euh, weekend day daal weekend bi day dugg si lundi boo moytu wala mardi ngay jàkkaarloo procureur su fekkente ne euh, am na changement boo xamante ne am na ci diggante bi ba nga gis euh, procureur bi su boobaa mën na tane ci moom mais daal Euh, c' est une euh, nu ñu ko mën a waxatee sax c' est une traditionnelle. Mhm. c' est une tradition euh, nu ñu koy mën c' tradition boo xamante ne pratique juridique boo xam ne dañ koy def. Mhm. waaye du loo wax ne da nga koy fekk ci texte yi. boo demee code de procédure pénale doo fekk retour de parquet. Mhm. mais dañu gis ne suñu juge yi ak suñu procureur yi tey jii dafa dañu toll ci nombre boo xamante ne amul noonu doole. ok bëriwuñ dossier dafay bëri si ñoom léegi parfois nga jëlee kenn fële bu ñu ko jàppee def ko en garde à vue xam nga garde à vue da ngay nekk ci diggante boo xamante ne nekkoo ci biti nekkoo ci biir mhm. waaw yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi ci ay loxo dañ lay garder à vue mhm. dañ lay garder à vue léegi bu ñu la defee garde à vue garde à vue bu defee 48 heures dafa war a expirer mhm. léegi nag euh, pour ñu bañ loolu moo tax ñu intercaler ci diggante bi retour de parquet mooy bu bu bu matee bu ñu la présenter procureur procureur bu la gisul mënuñ laa yóbbu sa kër mënuñ laa yóbbu prison léegi dañ lay jël ñu dem dénkaane ji la mhm. boobu ñu lay dénkaane commissariat central wala ñu dénkaane ji beneen commissariat loolu la ñuy tuddee retour de mhm. léegi boo demee nga fanaane ji fawaat fa boo xëyaatee ñu dugalaat la ci oto yóbbu la ci kaaf ba nga dem xaari ji gis procureur mhm. te ñu bëri sax dañ naan dañuy gis procureur mais ñu boo ko gisaatul tamit boo yendoo ba ngoon wala nga dem gisoo ko dossiers yi bëri na ak yu ni mel mhm. noonu ñu ñu delloowaat la commissariat bi dénkaane waat la loolu la ñuy wax euh, retour de parquet mooy mhm. delloowaat na retour de parquet retour de parquet mhm. léegi nag amaana mën nga ko gis mu daggal la kayit nga dem rëbës loolu mooy def nañ ko sous mandat de dépôt léegi nag bu ñu la defee su mandat de dépôt euh, parfois après boo demee sous mandat de nag après nga xaar ce dossier bu fekkee dañ koy dugal instruction mhm. ñu yóbbu ko instruction wala su fekkente ne procureur daf koy jox benn juge mhm. mu bi instruction mu jox ko ko mhm. wala su ko deful tamit euh, bu la yóbboo foofu bu fekkee dañ lay yóbbu flagrant délit euh, semaine bi si topp ñu yóbbu la flagrant délit su ko defee ñu daal di lay àtte par rapport ak tuuma yi nga xam ne moom lañ lay toppee mais ak lépp loo ci mënti gis rek ak régime fi nekk nag dafa am lu ñu tàmmaloon mooy instruction Euh, te instruction ñëpp xam nañ ne bu fekkente ne comme nañ ko daan toppee ñi nga xam ne dañuy jàppal Ousmane Sonko mooy par exemple euh, ndaw yooyu nga xam ne dañu leen doon toppee naan dañuy taal ay cocktail molotov ñi mm. dañuy def nii ñi dañoo def appel à l'insurrection xam nga su fekkente ne affaire bi dafa am rapport en matière criminelle la mm-hmm. su fekkente ne en matière criminelle la boo ko yóbboo instruction amul àpp moo tax tey ji am na ñoo xamante ne bu dul woon teg loi d'amnistie bi mën nañoo toog si prison ba màggal bu leen neexee duñ sax jàkkaarloo àttekat bi mm-hmm. mais nag su fekkente ne matière correctionnelle la boo ko yóbbee instruction amul droit passé six mois. Mhm. mooy war a ngis bu defee six mois ñu may la liberté provisoire nga dem sa kër. Mhm. waaye jàppal la date. Euh, daal day daal day dem àtte ji loolu nag mhm. euh, ci lañ ciy comprendre moo tax man ma am euh, yaakaar ne su fekkente ne dem yóbbuwaat nañ ko retour de parquet amaana suba mën na am mu gis procureur. bu ko gisul tamit day delluwaat parce que li ma lay wax ne c'est

lañ ne woon réforme judiciaire yi ñëw dañuy fexe nu ñu ko dindee parce que ñu bëri euh, souffrir nañ ci ñoo xamante ne après quatre retours de parquet cinq retours de parquet euh, finalement nga dem gis procureur après procureur bàyyi la nga dem ñibbi sa kër. Mhm. Euh, wala tamit ñu ne diggante bi dañ fay dugal ku ñuy wax juge des libertés. Mhm. parce que tamit nee nañ diggante bi il faut ñu am ko parce que procureur doole bi mu am am na ñu bëri ñoo xamante ne tey jii ñu ngi ci prison yi procureur ah am na ñu bëri ñu nekk ci prison yi procureur moo ne fa am na nag ñu ne doole boobu ñu jox procureur tey ji waroon nañu mën a am juge des libertés boo xamante ne tey ji moom mooy sukkandiku ndax nit ki dafa war a dem kaso wala dem kaso moom mooy xool ndax dañ koy tëj wala duñ ko tëj mais procureur souvent comme koo xam ne dañ ne euh, moom mooy avocat wu société bi mhm. gis-gisam bu njëkk rek mooy defendre société bi la koy jàppee ba tax na ñu mhm. bëri jàpp nañ ne mhm. doole boobu ak taxawaay boobu mu moo waral ñu bëri tey jii ñi ngi ci kaso yi te procureur moo leen fa yóbbu moo tax am na ci réforme yi mi ngi ci programme euh, Diomaye président ñu ne dañuy indi benn juge des libertés su ko defee ñu am lu ñu wàññi ci procureur bi léegi juge des boobu nag moom mooy am sañ-sañu taxawaay euh, taxaw ci Euh, wax lu jëm ci liberté parce que fii ni ñuy tëjee nag dafa yomb trop. Mhm. voilà suñu mbokk internet yi nga xamante ne daanaka ñoo ubbi live bi ku ci mel ni Pape Faye Ahmed Yaba Ba Khalil Barham ziar naa la bu baax a baax Siré Siri Sène Dieye Aram Diop Adji ji si jaajëf lañ leen bu baax a baax te ñu ngi leen di ziar gis nañ ne yéen a ngi ci live bi. wax ne rek ngeen aimé partage waaye itam ngeen like activer li nga xamante ne moo di de notification bi ngir bu ñu defatee rek ay direct ngeen daal di koy jot ci nu mu gën a gaawee euh, ñu gis ne euh, Moustapha ki nga xamante ne moo di Bah ginnaaw information yi nga xamante ne suñu naataango yi di lii quotidien joxe nañ ko ci audition yu njëkk yi nga xamante ne def na ko moom Bah dafa daal di assumer li nga xamante ne moom la wax Ousmane Sonko ndax gis nga kàddu ya nga xamante ne wax na ko Ousmane Sonko du nekk ay mbir yoo xam ne sax nit dina ko mën a daal di ci jaaraat defaraat ndax la nga xamante ne na la mel donc bu fekkente ne moom Bah Diakhaté jël nañ ko procureur autosaisiru jël ko yóbbu ko wala dik daal di koy yóbbu bu demee ba li nga xamante ne moo di audition yooyu taxaw yaakaar naa ne waroon na def nit nga xamante ne moo di imam Cheikh Tidiane Ndaw mi nga xamante ne avoué na ni dafa juum erreur la ay la yéwén juum mënul ñàkk mais moom bu taxee assumé est-ce que yaakaaroon ne mbir mën na ko gën a dugal également waaw mais parce que ñi ko ñi ànd ak moom waxuñ ko dëgg xam nga ñi ànd ak yow bu fekkente ne yonent bi dafa ne bu sa mbokk jullit bu tooñee da nga koy wax dëgg sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. bu tooñee da nga koy bu tooñee da koy dimbale bu ñu ko tooñee da koy dimbale mm-hmm. ñu ne ko ku tooñ ku ñu tooñ mën nañoo xam ni koy dimbale waaye ku tooñ nuñ koy dimbale nga ne ko da nga koy wax dëgg mm-hmm. nga ne ko tey jii yow kat yaa tooñ bu ñu la tooñee nga dimb nga dimbali ko mais fekkente sa mbokk dafa tooñ nga taxaw ci wet gi naan dañuy dem jàppale ko dañuy dem assister ko dañuy def naka mm. su dul noonu euh, détenu politique tey bi ma gisee yenn journaux bind Bah Diakhaté détenu politique j'ai honte parce que je me dis que détenu politique ñëpp xam nañ lan mooy détenu politique su fekkente ne dañuy wax détenu politique ñoom ñooñee ko tuddee détenu politique ku mu ko waxoon ku nekk sa bàyyi nga dem porter ko plainte baa nga doon ñu ko mbay mer na non non du question mer <laughs> wolof bàyyi wolof du question mm. mm-hmm. ne tey ji par exemple na ñaawaay goo xam ne nit sax mënu ci jaara non ñoom ñu bind détenu politique yëpp nañ dindi tur bi mu def Ousmane Sonko ñu teg fa seen tur ah, papa xool de moo sol jotu la waroo ko solal sa nawle waroo ko sa mhm. léegi après ngeen taxaw ngeen di ko défendre vous permettez naan kii détenu politique la nangam ak nangam non non non di ci mbokkam di waxaale seen soxla mhm. kii mbokkam li la war fi ñu mooy nga ñaanal ko njekk loolu mooy li war ko dëgg mu dellu ginnaaw bu génnee nga ne ko. mën nga opposé wu sax opposition mënul ñàkk mais tamit ñu teg ko dans les règles de l'art mu am yar surtout mu am yar ami lu amul yar baaxul te tôt ou tard da ngay perte ab njaay boo ci boolee xamari perte rek boo réglé pertement rek nga siy jël. mais est ce que nekkul dafa am loo xamante ne tàmmoon na ko moom mi nga xamante ne moo di baajaxate parce que yàgg naa def li ni mel peut être la ko ci doon fekk bu njëkk ba wala la ko ci tuuti doon fekk moo ko ciy fekk jamono ji xëy na loolu mooy doog a feeñ peut être. waaw mais xam nga euh, li mu def ni yàgg na koo def. addinay plainte dal nañ ci kawam te plainte yëpp daawul mujju fen tey jii boo masaan boobu da da daan toog di live di la waxal di la sosal di dugg sa lu ko neex mu dugg si yow tudd lu ko neex boo nee damay plainte wala nga plainte yóbbu sa plainte du mujju fenn. Mhm. parce que dañoo amoon bàjjan am ay ndijaay am ay maam ci dëkk bi. Mhm. kenn du leen laal kenn du leen jege. Mhm. léegi nag bu loolu amee ba régime bi jeex. yaa xayti nga bëgg a continuer ci logique boobu mais quand même moomuñu sénégalais amoon na benn moment dañ leen a dénkoon a réew mi mu am ñoo xam ne dañoo nekkoon ci parparloo ba lu mu def neex na leen ku mu saaga neex na leen ku mu xas neex na leen léegi ñoo ñu jóge fi mu wéy di continuer xam nga lu tax nag mhm. muy continuer xam nga noo koy comprendre gis nga ñi leen gagné ñoom dañu daan toog naan Ousmane Sonko ak ku mu àndal du ñu mës a jiite réew mi. dañ ko ak boo xamante ne c'est vrai ak arrogance boo xamante ne da nga naan yéemu si yàlla da nga ñëw ñii du ñu a jiite réew mi ngeen mm-hmm. a jaxase fa. wax ci askan wi lu nekk lu nekk ñu def ko message bu nekk ñu jàllale ko léegi nag bi loolu lépp amee jàllul yàlla indi ko mu jiite la mais boo amul tuuti ngëm mais da nga naan doo nangu quoi léegi bañ a nangu boobu nag moo lay indi si yenn yenn comportement yi noo mën a gisee ñenn si ñoom commencé nan waaye Diomaye sax amuñu problème ak moom waaye Ousmane Sonko Ousmane Sonko waaw mhm. fu ñu fu mu gën a ñaaw ñu dagg teg si dara mhm. mais loolu su fekkente ne jóguñu freiné ko mais su yàggee na indi anarchie sax parce que beneen wet gi tamit daa ngi digg ñenn ñi naan bu fekkante ne nguur réglé ko ñun kenn ku ci nekk ci di dinañ dem fekk ji ka def li ni mel ñu diglante ak yow la loi du talion la mhm. jëmee xam nga maa ngi ko doon expliqué ma ne su fekkente ne régime dafay doog a changé toujours ñi nga xamante ne gëmuñu leen woon wala dañ doon xeex ak ñoom wala mm-hmm. ànduñu ak ñoom mm-hmm. dañuy def li ñuy wax déni de l'autorité maanaam duñu du duñu nangu ne kii mooy seen kilifa. duñu wekk kilifa non du duñ ko nangu quoi c'est-à-dire day mel ni comme xale boo xamante ne rek nit ki dafa ñëw ne ko léegi maa fi wutu sa si kër gi maa fi si kër gi mm-hmm. léegi maay sa papa day siisu ñoom noonu lay demee nag ñoom dañuy dañuy lànk ne kii du suñu suñu suñu kilifa mooy waral ñu ñu am benn taxawaay te loolu nag njit bii ñëw souvent xam nga ñun ñoo koy mel si ñoom mooy ñi nga xam ne soit dañ koo jege woon muy xëccoo ak ñoom wala ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkandoon ci benn keppaar yàlla baaxee ko mu rëcc leen comme Macky Sall bi mu ñëwee ak waa kër libéraux yi mm-hmm. moo tax bi mu ñëwee ba toog libéraux yi lu nekk daj na ko lu nekk lu nekk yàq nañ ko ko moo tax bi mu ñëwee moom moo njëkk commencé napp libéraux di jàppale dugal ci kaso bi mm-hmm. parce que xam na ne ñii ba léegi nangoo ñu mooy seen kilifa Ousmane Sonko foofu la toll ak ñii état boobu mooy ñëw maanaam autorité bi dootul amati day am benn crise quoi dootuñu ko wegati dootuñu ko joxati cër mhm. dootuñu ko wegati cër ba mu war a tegu duñ ko ko fa teg non duñ ko fa teg mhm. parce que ñi nga xamante ne dañoo weddi ne gëmuñu ne yaa fi nekk lijjanti woo leen mhm. nga bàyyi leen ñu màgg ba indi la crise léegi sa autorité am nga problème léegi nag après étape suprême bi la yóbbu mooy vers l'anomie est-ce que yaakaaroon na nangu ndogal jot na parce que ñoom ñàkk nañ fi 12 ans donc ay la yéwén na bu ñu demee nga xam te ne tamit àdduna noonu la da ngay dem sa morom toog mais bëri na si ñoom ñoo xamante ne nangu nañ ko mais am na si ñoo xam ne ba léegi ils ont du mal à reconnaître président Bassirou Diomaye Faye comme le président de la République Sénégal ba léegi. Mhm. même bu ñuy toog di ko gis RTS wala Ousmane Sonko di di di recevoir def nii ñoom dañuy dañuy def problème quoi dañuy toog naan mais kii fexe na ba nekk fi président nii rek waaye bu soobee dina xam ne fii la ñu fekk. Mhm. ni mu doon gouverner noonu la ñuy gouverner ak ñoom or situation yi du ñu benn. Euh, équipe yi du ñu benn. Euh, ñi nga xamante ni contexte bi sax contexte yi duñu benn. Mhm. loolu bu ñu ko bëggee imposer waat dañuy am problème parce que équipe yi duñu benn responsabilité yi du ñu benn euh, nu ñu koy waxatee militant du ñu benn kon am na yoo xam ne lii ban photo lii xanaa bi muy dugg loolu xanaa bitee bi muy dugg ci kii bi la. lii daa mel ni kon xanaa bi ñuy dugg tribunal la wala. bi retour de parquet bi la. Mhm. ok retour de parquet bi ok mhm. ok ba mu doon delluwaat la. waaye mais xam nga ñi ah imam moo ne na la ci ginnaaw. am déet. <laughs> imaam borom ku ma jël si dee. ku ko jël si dee ani ñi ko jël si dee nañ. loolu laa doon vérifié moom laa bëgg nga vérifié ma Moustapha. wala mu ndax dee nañu parce que dara wóor si boo demee ñi ko jël si dee nañ de. <laughs> dara wóoru si de ah mun nañ ci ah. dafa am dafa am lu lu am ci mbir mi parce que li nga xamante ne moo di problème mu Bah bi fi mu ne nii ñu bëri dañ koy politiquer dañ koy politiquer parce que gis nañu waa APR yu bëri daanaka ñoom dañoo jël combat bi porté ko mhm. am na ñu bëri ci ñoom sax jour ba nga xamante ne lañu ñu convoqué euh, Bah Diakhaté dikk gis nañu ñu bëri ñi nga xamante ne dem nañ dikk euh, di ñaawlu wala sax di ŋàññ ne li tax ñu daal di koy jàpp après mu mel ni sax euh, am na ay grenade lacrymogène yu ñu leen fa jot a sànni ba ñu mujjee tasaaroo dinaa leen lacrymogène yi moom ku ko mënul dëgg doo ko dékku de. saf na saf goo xamante ne. mais mais Ami xam nga. xam nga entraînement ba si yàlla du nit ñoom ñoo ko jëndoon de. ñoom ñu jëndoon safal ko sàpp def ci poobar def ci kaani ba mu saf sàpp bu la rombee buñ ko dóoree. ci borom yow lacrymogène ah. est-ce que suyaalee <laughs> am na candidat yow ñamoo yow ñamoo lacrymogène yi Moustapha non non fii deux mille vingt et un Moustapha ñamoo lacrymogène yi man dama doon dem ci terrain bi yow ñamoo lacrymogène yi yow yaa ngi woon ci <laughs> plateau yi di wax Moustapha lacrymogène yi wax la yi bu la téyee da ngay miit ami ami lacrymogène yi gis nga fii ku mu xeeñu fii fii bul fàtte ne xeex da am ci koñ am am ci bopp koñ non dama ne la pour nga tiim lacrymogène yi ni ma doon non yow jege wala noonu nee naa lacrymogène kenn mënu koo dégg ko man dama doon wax ci manifestation yi ñii lan la doon def pour gérer lacrymogène yi ñi doon manifester ma loolu moo ma jaaxal ba léegi ndax saf. waaw mais ñoom gis nga jot jot benn benn lañ ci ñam rek tasaaroo ñoom ñëpp. Uh-huh. ñoom ñëpp benn lañ leen ci dóor rek langay daal di daal di tas parce que li ñuy wax rek wax wax ji rek moo fi nekk de mais bu dee fi dëgg dëgg dëgg dëgg. ah du mën a ñoom ñëpp amuñu fit de mais boo ci génnee borom fit yi benn benn ñaar ñett bëriwuñu de mhm. boo leen doon compte duñu sori de ñi ci am fit dëgg dëgg biir bennoo boobu noonu bëriwuñu mhm. ñu bëri boo leen joxee convocation ñu ruux ñu bëri dañuy daw la preuve mooy tey jii ba ñu wootee dañ woon buñ jàppee ba jaxatee après dëkk bi dinañ yëngal dinañ def nii dinañ def rassemblement dinañ def mobilisation ban mobilisation. waaw dëkk bi dina gëj a yëngu da dul. parce que lan moo tax yëngalkat yi ñi nga xam ne dañoo am jotu yëngal ñoom ñoo téye réew mi fi mu ne nii yëngatu moom gëm naa ne dina jafe de am sa faa. waaw mais xam nga ñoom dañu yàggoon nekk ci position boo xamante ne pendant depuis deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois. Mhm. ñoom dañoo nekkoon ci position xam nga lan force restera à la mhm. ñële bi ñu toog naan force restera à la loi ñoom ñi ngi jàng ay stratégie yoo xam ne moom la ñuy déployer pour jàkkaarloo ak force boobu. Mhm. naka la ñuy xeexee ak ñoom naka la ñuy moytoo naka naka la ñuy naka la ñuy déployer ci terrain bi ba buñ jàppee ñi ñeneen ñi daal di jug ñoom xeex moo nekk dafa nekkoon dafa demoon ba ba mel lu nekk seen deret. lu ñu teg gars yi teg. non lu ñu teg ñu teg dañoo demoon ba xeex moo nekk seen léegi ñoom période boobu yëpp maanaam ñoom dañoo entraîné maanaam ay at dañ ko entraîné ci xeex di xeex rek ba ñëpp naan. dañoo Khalil Barham ne na su àdduna doxee ba waa APR naan libéré Bah Diakhaté waa Pastef naan force restera à la nga xam ne àdduna dox na. <laughs> nga xam ne àdduna gudd tànk la war a wax kay. àdduna gudd na tànk parce que boo loo loo loolu rek nga ciy mën a comprendre naka nag lo lan euh, su ma ne loolu nga ci mën a comprendre mooy tey jii boo xoolee tey jii soxna Ami. Mhm. waa Pastef jamono ji nga xamante ni def nañ ko di ko jàkkaarloo ak ñoom mu ñenn ñi yaa ngi gis waa ji nga jël yoon borom xeer bi. Mhm. fii kan nga mës a gis koo xamante ne Bah Diakhaté moo koy jël mu bàyyi seen kër jóge fële ñëw gàddu ay xeeram dem na day xeexi. ja non non non non moom xam naa nañ ko ñaanal njëkk rek waaye bu dee manifestation lañu yaakaar pour ñu bàyyi ko ah ragalal naa ko de. non du doo doo manifestation darul am sax. Mhm. moo tax bi ma déggee tey ñu naan APR ñu ngi mobiliser wu pour wax ñi dénoncer ak affaire yooyu may leen déet dégg naa def ndànk sëñ. gaa yaa ngi buruxlu waale la. détenu politique amu fi bu dee détenu si kanam tuuti ba xam ndax détenu politique dana am. wala même Abdou Mbow sax àdduna ci euh, député euh, pencum ndaw réew ma nee na intimidation la duñ ko nangu. non ñoom pour man. Mhm. pour man taxawaay bi responsable mooy la mooy ñaanal ko njekk gis nga nit il faut nga il faut nga doon koo xam ne dangay ngay da ngay da ngay cohérent ak sa bopp man ma ànd ak nit ami mm-hmm. mii saaga di def naka sudul noonu di di xotti worma di sosalaate ce matin rek tey ce matin rek Babacar Fall génne na benn extrait boo xamante ne baa Diakhaté amul lu ma ko ci yàqul Babacar Fall journaliste mm-hmm. extrait bi ba ba Bah Diakhaté lu nekk yàq na ko ak façon bi mu koy defee sa chauffe dans les commentaires waaw ça chauffe dans <laughs> nee na comme bu ñuy wax sage of dans ci tee sur le terrain. waaw sage of sage of dans les gis nga ak ak fii fii ngi brûlé ak. renfort fële mais kooku nga xamante ne tey ji ah, ci ay tuumaam. ba ci ba ci kilifa yi ay kilifa diine sax bu buñ jàppee ne kii Ousmane Sonko lay jàppale wala jege na Ousmane Sonko lu leen neex ñu yàq la ko. lu leen neex ñu yàqal ko du ñu bàyyi dara dafa am jaayoon kilifa diine ba tax sax ñenn ci kilifa diine am na bët yu ñu doon xoolee xale yi yu ñu mel. waaw loolu la ñuy wax naan ku ku fi dee ñi ñuy génnee doomu jàmbur ñiy dee. ñi def mhm. na ko sur noonu. léegi yow nga tollu ci position boobu noonu nekk ci dynamique boobu lu la neex nga wax lu la neex nga def dara du la ci fekk ñu lay jaay ñu lay nga nga am link di déggante ak ay ministre mhm. di déggante ak ay lu ne nga di ko def. Mhm. waaye léegi nga dem tey ji ba ñu jàpp la ñu taxaw naan détenu politique détenu politique foo koy teg léegi détenu politique mooy détenu boo xamante ne délit d'opinion la def maanaam toog nga nga ne par exemple gouvernement bi chiffre bi ñuy def nii baa nga def une diffusion de fausse nouvelle wala def marche ñu jàpp ko wala wala ñu jàpp mhm. waaw mais mais yow nga toog xas as gor ba noppi ñu jàpp la nga wëlbatiku naan détenu politique la léegi taal sa laay wax lu la neex wax lu la neex léegi man kon tey ji am naa droit su ma toogee fi ma toog nii ma dagg lu ñaaw teg si président Bassirou Diomaye Faye mhm. suñu ma jàppee ma ne noonu mhm. def liggéeyam ah, voilà bu fekkente ne suñ suñ ko yolomalee rek mhm. euh, ëllëg ñoom ñooy am ay regret bu fekkente ne yéen ngi ñuy suivre yéen ngi seen émission bi nga xamante ni moo di le soir ñu koy amal du lundi au bu 20 jotee lépp loo xamante ne rek actualité la Moustapha vérifié waaleel ma conseil des ministres bi dégg mhm. il paraît que dugg na ñu daal di koy teg te suñu mbokk internet yi lépp loo xam ne rek actualité la wala tooluwaay réew mi dañ koy daal di euh, waxtaan yéen ñi nga xamante ne yéenay safoo ànd ak suñu ay programme ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci euh, live bi jaajëf nañ leen bu baax a baax Mouhamed Lamine Jiite Khalil euh, la bu baax